diggante Serigne Touba ak yonent bi laa bëgg nu waxtaan digg ma yonent bi defut loo xam ne da koo da koo gonte lu mu xëyee rekk la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tuddee muy Serigne mu Moustapha bi ci keneen tope yonent bi la ko tuddee muy Serigne Fallou bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Lamine bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Bassirou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 وصل لكون حامة عبد الله xaddim abdillahi ya ilahi yàlla seeraloo naa ne bisum tey def naa sama jëmm ak sama tur muy jaamu yàlla donc boo xam ne bii day liggéeyal jaamu yàlla bu mag bi jaamu yàlla bu mag bi tax nga wax fa awfa ila abdihi ma awfa tax nga naan subhaana allazi asra bi abdihi leen muy rasulullahi loolu rasulullahi di koo xam ne ku ñëpp di liggéeyal la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 daa ni ilaamati nabi bu busaati liggéey rek jëm koy liggéeyal ak tag yoon koy la dara loolu ji loolu it wéral na ko ndax bind na ne mahat mahabbati yal muxtaaru sayiduna hubbil mahaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi ci da ulawo xarban xadiman lawo muskaani sanada loolu ko ku bind deseeloo kooka len kon seene ci yonent bi kon di gëm a yonent bi natteer li wunu ne ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp